jaale si sa xarit sa soppi Abdoul Aziz Ndiaye waaw àdduna noonu la àdduna ñun ñoo bokk ndey bokk baay Sénégal li ma la benn bopp la tey boo xoolee dëj bi Tiijaan Laayeen Xaadir ñëpp a ngi fi kon nii la rek Aziz Aziz bu xewlee bànneex ñu ngi fi bu xewlee naqar ñu ngi fi kon boog ñu ngi koy jaale ci turu ñëpp ci turu mbër yëpp ñu ngi ñëw di ko jaale Abdoul Aziz Ndiaye sunu nit la démb ndax man nekk naa waay lu tolloog 10 euh, ans sama kër nijaay Baye Laay Aziz ba xam naa soxnaam bu yàgg ba ma koy xam fii ci géej waaye laa xamoon bu yàgg lool ma doon fréquenté fii Baye Ndiaye nekkoon suma xarit lool euh, li am nag yàlla moo ko dogal nañ koy ñaanal yàlla rek ndax soxna si soxna su baax la ku yaatu la ku teey la ki nga xam ne ku bëgg nit la ku lislaame la kon boog dañ koy ñaanal yàlla rek fu mu jëm dàqal ko fu mu jógee. mais gërëm na ko sincèrement gërëm. loolu rek moo am solo ci àdduna déggoo ñu la sunu sunu borom nee na sa jëkkër bu la témoin rek jeex na te jëkkëram la mu ko témoin doy na sant yàlla ndi Sëriñ Tuubaa kon loolu ñu ngi koy ñaanal ci suñu barke Serigne Serigne Mouhamadou Habib Mbacké ci barke Khadim Rasoul yàlla na ko yàlla xare àjjana bi jaa Rasulullah sallallahu alayhi